السلام عليكم ورحمة الله بكين لين لين زيار بال حق لين بال إن يان سبحانه وتعالى مبالين جغل إن يوتي مسألة رقم خمسة وتسعون إن استعمال الدواء لرفع الحيض باتاي نيغي فصل وي جانغالي والوم ولا فديكو تودي مباخ من من استعملت الدواء لرفع لرفعه عن وقته المعتاد فارتفع فإنه يحكم لها بالطهر لكن هذا العلاج مكروه لأنه مظنة الضرر الله أعلى وأعلم بالصواب مسألة numéro 95 ñu jàng ci wàllu mbaax mooy jëfandikoo garab ci ne képp ku jëfandikoo garab ku koy teree gis mbaax ci waxtu wi mu ko baaxoo gis kooku dañ koy attee attey kulaab waaye nag loolu dañ ko sib ndax mën na koo jural lor ñu jàng loolu mooy fiqal ibadat yàlla mooy ki kawe te xam lépp lu jub lii tënk darsi bi rek mooy xam nga reeg dafa am jigéen ñoo xam ni buñ ko dee gis Euh, masalan bu leen fekkee masalan ñu demoon fi mel ni aji màkka <coughs> wala barab yoo xam ne ay barabu jaamukaay yàlla la te bëgguñ seen dere seen seen seen maanaam période boobu ñu koy def mu arrêté wala ñu nekk ci jamonoy koor te bëgguñu am benn boru koor benn bor bu ñuy fay ci koor ji am na ay garab yu ñuy jël ay pilim la wala ay yeneen façon yu ñu koy jëfandikoo yoo xam ne day tax duñu mën a gis règle loola nag nit ko bu jëfandikoo loola waxtu yum ko jëfandikoo bu doon juróom benn fan la juróom benn fan yëpp règle bi ñëwul kooku xam nga day day woor bu boobaa bu dee aj màkka lay day continuer yeneen euh, jaamukaay yàlla yi mu doon def parce que dañ koy considérer comme ku laab bu ko jëlee ba dara ji ñëwul kooku dañ koy considérer comme ku laab moo jigéen joo xam ni gisul règle waaye nag loola dañ koo sib sib gi moo lu tax mooy mën na ko jural lor ndax ku ne xam na ni deret jooju bu génnul mën naa indi ay catastrophe ci yaramu doomu aadama moo tax waxtu wi ko yàlla programmé waxtu woo mu génn ca moo gën bu desee ci yaram bi rek mën naa indi ay musiba ay feebar ay jàngoroog yooyu loolu moo tax ñu sib ko kon loolu mooy suñu dars tey an yàlla defal dégg ak ci am lu muy leerlu rek mën na koo tàppe ci numéro bi message incha allah bu ñu ko xamee danañ ko tontu subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk aleykum wa rahmatullahi